benn yoon heure boo ko jàngi yàlla dina la jéggal say bakkaar yépp waaw moom inna anzalnaahu fii euh, euh, fii lay boo ko jàngee ba mu jeex benn yoon fa nga toog balaa nga jóg yàlla jéggal na la say bakkaar yépp incha allah boo ko jàngee itam inna anzalnaahu bisu bisu àjjuma comme comme bisu tey nii nga jàng ko juróomi yoon Euh, nee na yàlla dina la defal juróom fukki bienfait yoo xam ni ay juróom fukki yeneen def nañ lool lox lool ci ay ngëneel yàlla di euh, euh, dina la fay tiyaaba bu mel noonu parce que xeetu Seydina Muhammad sallallahu sallallahu alayhi wa sallam dañoo am ñoom bonus la am waaw dafa mel ni ku yore yore këyit këyitu américain rek dëkk bu la neex la <laughs> waaw dëgg bu la neex nag waaw eh, waaw yi tamit boo boo ko jàngee tamit inna anzalnahu ñett yoon bi bi su ajuma nee yàlla dina la dina la may ci ay yiw lu mel ni vague vague eh, eh, duusu géej gi waaw waaw yi vague yi waaw ak ak ak tamit bépp xobu garab yi nga xam ne dafay sabbal tur yàlla tamit dina la jox ci lool lool moom bépp xob bu nekk ci kaw suuf eh, yàlla dina la bindal ay ti tiyaabo yu toll noonu incha allah yi tamit lépp léegi lu fi nekk yëpp daal mun ñu ko joxe mais itam ñu indiwaat ci itam ñu indiwaat ci itam boo ko euh, euh, euh, mooy inaa anzalnaahu boo ko jàngee téeméer yoon bisu àjjuma euh, ginnaaw takkusaan incha allah euh, dinga am di nga am euh, lay tiyaabay mooy yonent ak malaayka yi dina dina ñëw daal daal daal lay ziyaare ci ci ci ci li nga am daal ci ay yiw waaw dañ lay ñee macha allah waaw ku bañ a nekk tamit naafiq naafiq xam nga tamit feebar gënu ko rëy nee na euh, képp wala ku am tamit njaboot nga defal leen ko pour yàlla bañ ñu nga bañ a am njaboot goo xam ne ay naafiq lañ euh, bu ko jàngee euh, jour jeudi mu jàngal mu jàng mën na ko jàng ci ndox trente fois mooy mooy fanweer fukk waaw waaw ah, mooy. Ah, waaw ah, mooy fanweer yoon. jàng ko ci ndox bu dee zam-zam moo gën jox ko sa njaboot incha allah doo am doomu naafeq mukk incha allah waaw ñi ñëwaat itam ci sortu ixlaas aajo boo mën a am aajo bu mënta doon da koy def riyaada da ngay dugg ci néeg léeg-léeg nga tëj def ko juróom-ñaari fan. ginnaaw heure boo jullee ba pare rek nga def ko mooy sooti ixlaas ixlaas aaya bu nekk baat bu nekk baat bu nekk ci sooti ixlaas am na lu muy def baat bu nekk ci soo sooti ixlaas am na lu muy def waaw aaya bu nekk tamit am na am na lu muy dox boo ko boolee yépp tamit am na lu muy dox am na tamit ay ay talaasim ak ay xawaatim mais yooyu tamit dafa ja dafa laaj jàng lu ma ci yàgg wax mooy boo jàngee sootu ixlaas ba lam nga jàng ko ñeenti yoon nga reprendre encore ba euh, ba lam yalit nga jàng ko fukki yoon nga reprendre tamit tamit nga tàmbaliwaat ko ba euh, euh, ba lam yalit nga jàng ko téeméer yoon da am téeméer ak fukk ak ñeenti donc nga doog eggali saa bi ba mu mat boo ko boo ko defee bépp aajo bu mu munta yàlla mais boo ko defee da ngay da صرخ نك ولا جيلين بو امي دولي بو امو دولي نك غيني خار واو بو امو دولي نك دوغو غيني خار اديو لو مك مك مك ان شاء الله بوكو دافي مي بو بوغي بو غنا اوتل جيلين بوكو مونو نو اوتل واو واو بو بو بوغي اي اه بو غنا غاو بو يوري انتربريز ولا يانغ ايبي yaa ngi yaa ngi bëgg dugg ci commerce bu mag wala yaa ngi bëggoo a dugg ci post bu mag dem leen bu leen nit du nay ci boppam nit warul nay ci boppam xaalis këyit la rek ak kii du faj day gàcce day faj aaru leen aaru leen bu baax parce que yéen ngi gis même entreprise yi liggéeyante bi ñii ngi dof ñii ñii ngi yàqu ñii ñii ngi tëdd tëdd seen kër amuñu sax lu ñu lu ñu fajoo ñii ñii ñu ci hôpitaux yi donc. nit warul mel ci boppam mbokk yi ah li fi nekk yëpp moom kenn mënul génn lépp donc waaw donc euh, ñi ngi waat encore numéro bi mooy 77 135 91 11 77 135 91 11 beneen bi 77 113 05 zéro cinq boobu mooy euh, le commercial bi képp ku bëgg a jënd fii ci produit euh, da ngay tapé 77 113 05 05 mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa